jox la ci waaw mën nañ ne sëriñ daaru mën nañ ne sëriñ tayba wala sëriñ nangam da ko def mooy dëkk bi lañuy ñuy lëkkale kilifa ga fa ne di baaxe xam-xam su ko defee sëriñ Touba nag mooy ki sanc Touba nekkoon Touba ba ku yittewoo xam boromam ku yittewoo àgg ci boromam boo fa agsee mu def ko ci yow ba loo taxoon mag ñu topp ko dégg nga sëñ Moussa Kane sëñ Touba di maanaam dex ku dem duy ku soobu ne mes bu génnee xam boromam su ko defee Xaadimu Rasuul gi lu ko boromam jagleel la te loolu wax na ci ay sëmin ne law inde jeewal yi ci biir gaal gi la ko ko suñu borom xamal na ko moom mooy kii liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax baatu xaadim li muy tekk ci wolof mooy liggéeyalkat ar rasul mooy ki ñu yónni woon kan lañu yàlla yónnee woon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag mën nañ ne ci tënk Sëriñ Tuubaa ku ñu yàlla baaxe la la genn kilifa seede woon ci moom ne xéewal la gu yàlla baaxee ay jaamam ngir ñu mën a xewlu ci moom te boo jàngee mbindam di nga dégg mu ne waa géej gi danañ ko topp waa jéeri ji danañ ko topp mu nekk borom njariñ loo xam ne amul genn lool su ko defee nag muy aji liggéeyalkat ci yonent bi sallallahu alayhi liggéeyal ko ci xam-xam liggéeyal ko ci yaatal lislaam liggéeyal ko ci yeete liggéeyal ko ci mbind liggéeyal ko ci jamono joo xam ne ju jafe la ndax booba mën naa ne noonu lislaam bi dañoo bari woon lool te am yéene gàllankoor diine ji nekk ci dëkk bi sëñ Moussa am na fu mu muy wooyee sëñ Tuubaa ba naan amul ku jaxasoog tubaab juróom yaari at yu mat te yàquñu tawhiidam ku dul sëñ Tuubaa booba tubaab bi mën nañ ne kéeféer moom lay dund pas-pasam jubul pas-pasam baaxul mu dugg ci réewu jàmbur bi mu duggee ci réewu jàmbur pas-pasam nekkoon colonisé te colonisation du économique kese mais dafa am volet social am vole culturel ba ci volet religieux sax am na te di nga gis yenn réew yoo xam ne yàlla nattoo na leen amuñu ko mel ni am sëñ Tuubaa te bi fa colonisation duggee yàq na lu bare bare bare ci seen culture yàq na lu bare bare bare ci seen diine seen i ngëm-ngëm ba ci seen col ko sax am na lu ci bare bari rëcc na leen la ko def mooy gan gi leen gane si wëlbatiku assimiler leen nga xam daf leen mujj soppi moom ni mu bëggee nga xam ne ay benn wii wii la ñuy doon bu leen nee def leen ñu def bu leen nee bàyyi leen ñu bàyyi te moom mi naa leen def leen bàyyi leen daanaka intérêt boppam moo ko tax a jóg su ko defee bi ñëwee ci réew mel ni Sénégal ñu fekk fi mel ni Sëñ Tuubaa mu wax ne inni ujahidu bil ulumi wa bituqa abdan xadiman wal muhiminu shahidu mu ne moom jihaad gi muy jihaad digganteem ak noonu lislaam yi du jihaadu jaasi du jihaadu ay fetal waaye jihaadu xam-xam la ak ragal yàlla daanaka boo seetloo xalimaam la yor di bind yor ay taalibeem di leen yar waaye bi mu noppee ci ñoom tubaab bi mënu leen a moyloo yàlla te loolu mi ngi tàmbalee ci moom sëriñ bi tubaab bi jëlee na ko fi yóbbu Gabon jëleewaat ko fi yóbbu gànnaar jëlewaat ko fi yóbbu ci yéen jolof résidence surveillée ba njaareem lépp ci résidence surveillée la sëñ bi nekk waaye yàqulu ko dara ci liggéeyam te boo seetloo Touba bokk na ci dëkk yi nga xam ne mën nañ ne tubaab bi amu fa dara waaye xoolal tey Touba ni mu ni mu suqalikoo te xoolal ni ko tubaab bi seetaanee woon ci wàll yëpp loolu xarañu sëñ Touba lay wane ak murit gi tey ni nga xam ne noonu lay yi ci kilifteef waaw tey buñ naan mooy deuxième ville économique di nga xam ne loolu la ko may Touba ak kéemaan la mën nañ ne lu sëriñ bi liggéey la lu taalibe yi doxee la ci fas yéene boole ñaar te mooy liggéey ak jaamu yàlla ndax ñaar yi mën nañ ne mooy pilier yoonu murit ndax sëñ bi ak yeesal kese ko taxoon na jóg ba ci xaadimu rasul googu loolu ko indi wa sunnatoo incha bi rabbi ubayinu nee na li ko tax jóg mooy beesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te diine jàngaluñu yàccaaral diine daf ñoo jàngal ñu bàyyi xel àllaaxira ndax bakkan lañ yor bisa ngi ñëw dañu koy ñàkk am na geneen dund boo xam ne moom la ñuy dund buñ faatu muy dundu barsàq ak dunduk àllaaxira waaye nag gannaaw àgg guñ fa ñu ngi ci àddina di dund te àdduna war ko waruñu ko war a ràppal wala tan sa nasibaka na dunya donte ñu ngi waaj a àllaaxira waaye faaw ñu bay li ñu war a bay ci àddina moo tax Sëñ Tuubaa nekk jëmm ju kéemaane ju ñu yàlla baaxe mu xam nan la ñuy defaree àddina bu dee àdduna neex naa defar mu xamal ñu itam nan la ñuy jaamoo yàlla ba suñu àllaaxira duñu am genn jafe-jafe bind ay téere defar ay mag ba nga xam ne ku leen xool roy leen sa àdduna mën naa jag sa àllaaxira jag nekkoon ku ñu ràññee loolu ci wàllu liggéey nekkoon itam ku doon liggéeyal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bindkat bi di ñëwaat ci jaar jaar sëriñ Touba. waaw dem gi demuk yóbbu la ndax boobu sëñ Touba tubaab bi dafa bëri ñum jàmmaar lool ñoo xam ne dañoo dajale mbooloo ci turu lislaam gannaaw buñ dajalee mbooloo ci turu lislaam dañoo mujj jàmmaarloog tubaab bi ku mel ni ma Maba Jaxu wax naa ko sànq ku mel ni Cheikh Omar Foutiyou Tall parce que ba ñuy jàng sax dañ naan ñu disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara booba cib xare la woon kon yàgg naa jàmmaarloog ay nit yi diine ñoom tubaa bi biñ gisee nag sëñ tubaa ñëw woote ci Mbàkke Kajoor ñu koy wuye si mbooloo mi dooleeku di dooleeku ba sëñ bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawol mbooloo mi dooleeku mu jóge Mbàkke Bawol sanc dëkkam bii di Daaru Salaam mbooloo mi dooleeku mu sancati tubaa te Touba li tax mu sanc ko jël Mbàkke jël Daaru Salaam rafatale ko Cheikh Anta Gaawaan mooy booba dafa xumb lool te xam nga yare ak tàggat nit yóbbu ko ci boromam dafa aaje wéetaay ndax ñooñu faw nga berleen boo ko doon misaal dafa mel ni hôpital rek hôpital mënta nekk ci biir marché hôpital mënta nekk ci mbedd ndax ay malaat ñoo lay dikkal te malade yi faw nga berleen kenn ku ci ne nga jox ko garabam ba mu wér nga delloo ko ci biir mbooloo mi su boobaa du leen lor duñ ko lor sëriñ bi it li mu woote woon daanaka hôpital la boo xam ne ki muy faj mooy ki xolam feebar ci feebaru xol yi ni ki rëy ni ki kañaan ni ki bokkaal yàlla ni ki soxor ni ki ngisal ak yooyu nga xam ne dafay yàq jëfi doomu aadama sëriñ bi dafa woote ngir yar la tàggat la ba yooyu nga set ci set ci wecc loolu moo waral nag sëriñ bi mbooloo mi wuyu ko bari lool am na fu mu ne jaawastu naas wa maa fi ay dinaas ilaa rabbi naas fa lama wasawtu ilaa rabbi naas ahtaani nafa naas fa kafaani dura naas daf ne dama jéggi nit ñi jéggi li ci loxol nit ñi dem ci borom nit ñi bi ma àggee ci borom nit ñi daf maa jox seen njariñ fegal ma seen lor loolu nag faa mbooloo mi wuysu ko bi ko mbooloo mi wuysee nag tubaab bi dana njort ne kii ci sama kaw la jëm ndax dañoo baaxoo dal ci kawam ci turu diine am nag ñoo xam ne ay raj lañ ay ruuxalekat lañ ne sëriñ bii nga xam ne mi ngi dajale mbooloo ci kajoor bu noppee ci kaw tubaab bi la jëm tubaab bi it njortu loolu ba tax mu convoqué sëriñ bi ne ko wuy ma ndar sëriñ bi it du def dara lu mu ci ndigalal boromam gannaaw amagul ndigalu wuy ji yónni na maam na ñaari yoon yoo xam ne dem na ndar wuy ji tubaab bi waaye bi tubaab bi dogee ci ne kii maa ngi koy dama koy jëli ji bu ko neexee bu ko naqaree sëriñ bi nag ci la am ndigalal boromam moom ngir wuy ji tubaab bi keroog la bàyyi ko euh, Mbàkke Baari ndax ginnaaw bi sëñ bi sancee Touba am na ay xew-xew yu xew sax ba sëñ bi tuxoo Touba daa di sanc Mbacke Bari Mbacke Bari googu fa la sëñ Touba déparé ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ne xarajtu yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fi chehri safar maa ngi génn fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci bis bi nga xam ne bisub samedi la waaw bisub gaawu ngir liggéeyali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu demee di wuy ji nag ci la dajeeg tubaab bi jël si ko ñu daje tund jeewal moo tax di nga dégg sax ñuy màggal jeewal ñu dajee jeewal ci lañ ànd dem ba yegg ndar

kaw gi nag mën naa nekk der bu ñëw waaye sëñ Tuubaa kum pikiir lislaam kum pikiir li nga xam ne moom la woote ci diine ci pas-pas tubaab bi du mën ci yow dara loolu nag moo indi tubaab bi génnee ko dëkk bi yóbbu ko Gabon mu def fa daanaka juróom-ñaari at ak lu topp delloosi ko nag ci ci ci ci réew mi ci mbaaxu suñu borom ci kàttanu suñu borom waaye sëñ bi bi muy dem moom daanaka bind na ay bëyit yoo xam ne rawatina lu mel ni asiru di nga xam ne kii moom fa mu jëm xam na ko moo tax daan na wax ne eh, yàllante tukki bi bañ a am daawul nangu it ñu ne ko bi la tubaab bi jàppee waaye moom bi ma jàppee tubaab bi la daan wax ndax ñoo ko dimbali mu dem ci réew yoo xam ne liggéeyal na fa boromam loo xam ne ëppoon naa bañ a am mosee ak liggéey sax genn mag di ko xool bay méccitu mu ko déedéet waaw yaa woon mu bañ am moom loolu moom weesu na sant rek a des ça loolu yëpp ci tukki bi la jógee. écrivain bi mu ngi ñuy ñu waatal si jàngale Serigne Touba ndax ba tey bu ñu sukkandikoo si moom nag jàngale ki nga xam ne mooy xaadim rasul yemul woon rek ci mouridisme yàlla suñu borom dafa am ñu muy tànn ci ay mbindeefam baaxi leen suñ tubaa nag dafa bokk ci ñooñu te waxal na ko boppam ay yoon mas naa jàpp ba noppi sax di laal ci njàppit mi waaw naan sàllaaw li ngeen yëg ci jëmm ji ba ji barkeelu gën a leen ko yëg borom jëmm ji ndax ku yàlla suñu borom baaxi la baaxe gi nag dafa feeñ ci jaar-jaaram moo tax jaar-jaar yi sëñ bi lu mat a gëstu la ndax moo ñuy dimbali ñu mën koo mën koo roy sëñ bi mbooleem lu ñuy nawee doomu aadama ci ci ay jikko yu rafet boo jàngee sëñ tubaa gis ko njub gi yar gi teggin gi nangoo jaamu yàlla gi bàyyi xel ëllëg jël njabootu boppam yar leen yar goo xam ne ak saa foo ko nattuwee te loolu lu ñu war a mën a jàngee ci sëriñ bi la wëlbatiku kilifa mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko liggéeyal ba nga xam ne damay faral di wax ne sëñ Tuubaa foofu mu demal yonent bi lu fa yonent bi soxla mën na koo defal su ko defee kon kooku yemul ci ne est-ce que yonent bi rek waaye dana est-ce que bi yonent bi amul morom mu wëlbatiku nag roy ko ba mat ko taalibe mat gi mu ko mat taalibe moo tax mu mën koo teewal fu ne mën a yeesal lislaam bi nga xam ne yónni saa salaam tey moom la yàlla yónni ngir mu bu installé ma maqaarimal axlaaq loolu nag jàngale la ci ñun taalibe yi ñoo xam ne est-ce que sëñ bi baax na lool sëñ bi amul morom baax na lool te mënuñoo wax est-ce que sëñ bi sëñ bi amul morom nu raw nu ko sëñ bi waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndax dafa yem ci est-ce que kese waaye dafa wëlbatiku war a xam ci diine moo xam lu ko li ko war diggante ak boromam mu matal ko kéem kàttanam taalibe yu ko yàlla dénkit yonent bi jox ko ci ndigal ngir mu yar leen sëñ Tuubaa def loola ba mag ñi gis nga nañ seex loolu bon gis nga mag ña nañ wanee ginnaaw lépp lu yàlla gërëmul seen dund lépp ñu jeexal ko ci lu yàlla taalif ay téere sëñ bi lim bind ci téere bari na lool sëñ bi lim bind ci tomb yoo xam ne da ci daan tombal mag ñi di leen yee ci seen mbiri diine kenn xamul lu mu yooyu nag dafay baax ñun ñi nga xam ne ñooy woote woo taalibe woote woo ne bëgg nañ sëñ bi ñoo xam ne sëñ bi maanuwul ci ñun duwul ne dañ naan murit lañ fu ñu neex jaar nuñ neex dundee duwul sax da nga naan ab sëriñ laa ci yoonu murit nu ma neex ànd ak samay taalibe déedéet Sëñ Tuubaa lii lépp da ko bind taalibe nu mu war a doxee ngir jariñoo ab sëriñ it lan moo ko war digganteem ak taalibe bi nga xam ne moo ko topp ngir moom bu ëllëgee du am benn jafe-jafe digganteem ak boromam te itam du am jafe-jafe digganteem ak Sëñ Tuubaa ndax ku ñu topp ngir Sëñ Tuubaa topp la ngir yàlla am na lu la ki la topp na lu ko war ngir la lam fa war a jëlee mu jële ko fa lépp mu ngi ci téere yi téere mel Masaalikul Jinaan lu mat a yër la Sëñ Tuubaa bi mu demee ba ci jeexital gi dane alhamdulillahi ladi xat ak akmala kitaabana min bahli ma xat chaqala nee na maa ngi sant yàlla mi nga xam ne téere bii moo ma dimbali ba mu mat téere bu mel ni nax ju loo yittewoo ci teggin Sëñ Tuubaa jàngee na ko ci biir xoqal bu kaw mbiru toppee sëriñ bi lu ko war taalibe bi lu ko war xoqal bu kaw ba mu jeex loola toujours si xaar loo war a xam ci wàllu julli ci farata yaag sunna yaag yëpp sëñ bi jàngee na ko ci biir lu mel ne jawharu nafis yooyu yëpp ay téere xam-xam la yoo xam ne Sëriñ Tuubaa ko jàngale am yeneen téere yoo xam ne téere tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg suñu borom subhaanahu wa taala téere ñaan yu baree bari sëriñ bi taale kon ndam mi xam-xam la boo xam ne war nañ koo mën a jëriñoo nañ ne est-ce que nañu sëñ bi yéem it waaye buñ ko noppee nañ fexee jéem nag jëfee ay njàngaleem ndax lu ko soxaloon la am na fu mu wax ci bay ne isil muridu laa yuridu abada gayra rahmaani xeesu xasada nee na taalibe pire lenn képp mooy jubluwaayam mooy ngërëmal boromam ku bëgg ngërëmal yàlla day feeñ ci sa wax te mooy wax li yàlla gërëm feeñ ci sa jëf mooy jëf li yàlla gërëm feeñ ci sa pas-pas tam nga fexe ba sa yéene lépp dëppoog lu sa borom gërëm te yoon woowu lañ cay àggali Sëñ Tuubaa jàngal nañu ko macha allah am na fu muy waxee ne bu ngeen di yéene bu leen sàggan waaw boo demee ba yéene Sëñ Tuubaa nee na wala takul minal gaafilin bul bokk ci sàggan mel ni dañ ne ko lu tax mu ne inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla dafa xam li ci biir dënn yi sëñ Tuubaa ne boo demee bay wax bul bokk ci ñi sàggal mu mel ni dañ ne ko lu tax mu ne xat sami allah ndax yàllaa ngi dégg mu ne boo demee bay jëf bul bokk ci ñi sàggal mu mel ni dañ ne ko lu tax mu ne inna allaha basirun bil ibad yàlla mi ngi gis ay jaamam xam nga kii bu la yaree ba nga am kersa ci sa borom nga xam ne loo wax sa borom dégg na ko loo jëf sa borom gis na ko loo yéene ci sa xol bi sa borom xam na ko te am nga kersa ci yàlla kon sa yéene dana